waaw man laa Ali Ndiaye de la communication IPOS IPOS mooy interprofession oignon du Sénégal au national tey nag euh, ñoo ngi bëgg a waxtaan ci benn élément bu fi jot di jaar fan yii yëpp jot naa ko 4 jours avant ñu envoyé ma benn vidéo ci benn gain boo xam si dafa bàyyi sobleem bu mu ñor nee na mu doon ko yóbbu pour di ko jaayi il paraît que ci lañ ko arrêté demande ko ay lettre de voiture moom amul lettre de voiture ci la ko gars yi jël yóbbu ko service du commerce defe naa Rufisque ñu jàpp ko alamaan ko à cent cinquante mille francs moom nag ci loolu bi ñu ko ko defelee léegi mu jaar fi mu war a jaar donte moom tooñ na ba pare mais dafa wëlbatiku def benn vidéo envoyé ko ci panel yi nga xam seen ay whatsapp ak yooyu ci lañ ko ci lañ ko jot bi ñu ko dégloo nag loolu mu wax yëpp dëgg la maanaam dañ koo alamaan mais il paraît que moom dafa war a xam ne moom moo tooñ ndax nag ñun dañoo am ay kuréel yu sos ci ndigalu ministère du commerce mais ci ndigalu président de la république ñu def ko muy interprofession oignon muy filière oignon bi di filière commerçant yi ak filière producteurs yi ci teewaayu ARM agriculture direction horticulture yëpp ñu teew ak commerce bi ñu waxtaanee ñu xam ni lan mooy saafara soosu yi ci nga xam yuux yi am ak yëpp parce que jamono yi dañuy wax ni am na soble yu jógee Fuuta di ñëw mais dañ koy pirate maanaam dafa am soble bu ñuy àndal boo xam seen day jógee côté Mortane bi ñu koy boole ak moom di ko dugal naan Sénégal la ñoree te loolu amut bi ñu ko defee ci la producteur jóge ŋàññi loolu ñu woote réunion laat lan mooy solution bi bi ñu ko laajee ñu laaj ñu ne nag léegi dañuy ay lettre de voiture yoo xam se ne dañuy accompagner oto bi maanaam commerçant bu demee ci plateforme bi jënd ba pare dafay demander lettre de voiture bi da koy dagg jëndee ko à 5000 francs wala 3000 francs bu ko jëndee dañ ko ciy bindal kan moo ko jaay soble bi ban zone la ko jaayee kan moo ko jënd ñaata tonne la ban oto moo ko yeb destination bi fan la jëm su ko defee dana am sécurité sécurité bi nga xam se moom moo ci war loolu nag moom comme moom defu ko jalgati na yoon ci côté boobu bi mu demee commencé di joytu ci la partage affaire yi ñun tam bi ñu ko yëgee def nañ ci lu ñu mën parce que 150 000 francs lañ ko alamaanoon mais donte moom jàdd na yoon dana ko yar mais dana ko dema defal intervention ARM tamit sukkandiku ci loolu défendre ko ci ba mujj mu fay à 500 kii 60 60 000 francs jëlaat problème dem jaay ko premièrement fi mu njëkkee juume mooy producteur amul droit jël marchandise yóbbu ko ci marchand daf koy jaay parce que marché bu ñu ko waxee commerçant la ñu wax coxeur bi fa nekk wala commerçant bi jënd marchandise di ko jaay mais ba pare dama jël sama yóbbu ko ci biir marché bi pour dem di ko jaay loolu mooy waral chaque jour rek ñuy am ay jafe-jafe ba pare wëlbatiku di ŋàññi ni te ñoom ñoo tax lépp lu ñuy wax ñoom ñooy waral ni ñu ko wax loolu moo taxoon vidéo boobu lu ñu metti la lu ñu déranger la il paraît que dégg naa tey sax am na benn journaliste bu wax ni bind ci mais nag li ma leen wax jéem ma xam lan moo ne ca biir mais ak ku ci naa bind ak ku mën a doon ngay segg bu baax a baax a baax li ngay bind fan la tegu ba nga xam se ne ki koy liir du ci am benn jafe-jafe boo xam se moom dana ko ci am ndax nit ki mën ngaa bind rek am benn waaye bu ko liir li nga bind donte nekkul dëgg sax mais moom day comprendre day jàpp ne moom kon loolu moo am. jàppale ba wàññil ko 150 000 ba 60 000 léegi lañ ko wàññee est bi mu ko yëgee moom du bind. mais dafa daf ko yëg ñu ñu interpellé ARM pour wax ko ne ko na woo direction du commerce ba fa nekk donte moom da doon bay donte jàdd na aw yoon mais li mu fay li ñu ko fayloo yoon la sax mais dafa bëri te li mu jooytu tamit ni man dama doon bay bàyyi woon oto dañ koy encouragé pour ëllëg mu mën a continuer di bay parce que bëgguñu mu découragé wu ci loolu moo tax ñu wax ARM ne ko carrément na woo service du commerce comme ñoom ñaar gën nañu jigéente noonu jigéenan leen gaa mais moom moo gën a jigéen ñooñu pour moo sukkandiku ci loolu wax leen buñ ko mënee wàññil ñu wàññil ko bi ñu ko woowee nag ci la wax ni ñoom ndax mën nañ ko wàññil ci lañ gars yi dak ko ci 60 000 francs 60 000 francs yi tamit duñu la wàññil pour da ñëw di wala feneen fu mën a ni agro business yi amuñu mais léegi loolu changé na bu yàgg parce que bi ñu ko waxee dañu wax ñan leen ñoo leen jox ay lettre de dañu wax ARM dañu joxe ay lettre de voiture pour mu dem ci agro business yi soo demee fi mu toll croisement ngu ñaan bii nga xam moom mujj judd am na lettre de wala pomme de terre dañ leen wax ñu arrêté seen bos ban dem ba fin mois de juin defee ñoom a fekk produit de ndoy dana mën a jaay li ñu yor lettre de foofu léegi plateforme yëpp la am tout ñun bi ñuy waaju um koor mardi bi njëkk bi ñuy njëkkee um koor ñun def nañ ci benn tournée jóge Louga ba egg Dakar pour sensibiliser ñëpp jox ko gendarmerie yi wax leen ni carrément am na lettre circulaire boo xam se ne bind nañ ko te ñun ñoo ci tënk pour ñu am ay lettre de voiture moo xam soble la moo xam pomme de terre la police yi fi nekk yëpp man brigade bu ci nekk dem naa fa moo xam gendarmerie la moo xam police la déposé lettre bi donte jóge na ministère ñëw ci ñoom mais dem taa man tam déposé en tant que représentant kon li ñu bëgg mooy nit ñu nañu fexe ba euh, euh, ki nga service yi nga ñoo fi nekk contrôle bi ñu war def nañu ko def mu tegu ci yoon moo xam lu ñu war fay la Aly Ndiaye koy fay wala keneen yàggu dara man am na benn intervention ma ci def Saint-Louis benn camion pomme de terre dañ ko jàpp à 3 heures du matin fii la jëm si ci man bi mu départ daggul leer de bâtil côté Samañ jóge mais dafa mujj fay à 450 000 francs te ci man la jëm mais moom moo def njumteem ba waa ji daggalu ko tool bi dañu mujj ñoom dañ ko fay 450 000 francs te loolu yëpp ay ci keneen kon nag li ñu bëgg mooy fi ñu bëgg dem pour ñu dem fa force ñu bokk bëgg-bëgg force ñu bokk gis-gis force ñu bokk nday bokk baay jàppante pour gën a jëmmal li nga xam ne tey moom mooy sécuriser lu ñu nekk parce que ndax mbir bi nga nekk bu njëkk yow rek yaaraan def léegi dem nga ba ay sene ay at étranger ñëw nañu fi pour bokk ak yow war nga mën a sécuriser li nga yor bu baax a baax ba nit ku ko gis dana ko xemmeem mhm. euh, naam ab miin feeñ na ko kii feeñ na ko jox nañ ko benn seen mbokk producteurs yi ñoom nee nañu seen suuf boobu euh, géej mbay mi la ñu yaakaar ñoom problème boobu yéen am ci gis-gis yéen man yëg naa ko bi ma ko déggee tamit démb rek dem naa ci zone boobu laajte lan moo parce que bi ko yëgee tamit damaa laaj ndax maire bi moom baykat yi la àndal waaye laa ko ñooñu nu ñu ko jox lañu àndal liñ ma wax mooy maire bi ñooñu euh, baykat la àndal kon yaakaar naa ni euh, pour ñu jot ci warut yomb parce que tamit nag maire bi ko jiitee jaraaf bi bu jiitee commune bi buñ fay jël suuf ci moom la war a mën a jaar ak lu fa man di feeñ la fa nit ñee jariñoo moo ko ëpp te Sénégal moom yaakaar naa ne bu dee fu fu feeñ dara rek ñu ñu yëkkati ña fa nekk wala ñu nangu suuf sa dina bari fu nit jóg kon nag lu ñu mën a nappe ci géej gi nañu leen delloo seen suuf pour ñu bay man sama foofu la tollagul actuellement mënuguma ci xuus nag bu baax baax parce que xamuguma exact lan moo nekk ci biir biir biir daal li ci ëpp solo mooy nanu leen jàppale lépp loo xam seen lu war a nekk la ñu def ko lu wërta a nekk ñu xam ne wërta a nekk ñun ñëpp tolloo tey maa ngi nii sama place gis nga li fi nekk ci entrée bi euh, boo demee ci dépôt bi ne fii am na li fa nekk gis nga ko d'ailleurs ARM ñëw nañu fi sànq pour jéem a def benn sondage pour xool lañ ma am soble bi man rek jox naa leen cent sept mille cinq cent tonnes yoo xam se ne maa ngi sama place du nekk lu nekku ci àll bi te loolu mënu fi jeex fi ak fii ak julli beneen bi de mooy qualité bi ñu soxla am na fi kon pomme de terre tamit démb dem naa nooto gis naa fa ñoom dañuy wax sax fan la ñuy jaayee ñoom lañ may wax ndax ba prix bi ñu doon incarné jamono yi ci ginnaaw mënatuñ ko am xam ci ginnaaw bi ñu defee tournée ak ci côté tool Maguette Ndiaye bi ñu fa jógee ñoom dañu annoncé ñi 260 la ñuy jaayee ñu ni 275 mujj am ñoo xam dañuy wax ñoom 300 la ñuy jaayee euh, te yaay indi xot saak mooy 3 mu taxawee la presque 310 bi commerçant yi taxawee même pas 5 jours la woote waat nañu jaay mais fi mu ñu ngi wut 3 260 mooy 6500 kon yaakaar naa ni euh, fi mu toll ñun bu nu bu nu gën a góorgóor daal li ñu bëgg danañ ko am incha allah rabbi euh, korité bi ren dana jàll ci jàmm te dana am produit bi ñu soxla te du cher tabaski incha allah noonu soble fi mu toll bi nga xam seen moo gën a cher ba gën a cher prix en gros bi ñoo ngi koy jaayee 250 francs mooy 6250 am na ci beneen boo xam se ni sac ma ngi jar 5000 francs muy 200 boobu mooy jógee Fuuta am na buy jógee Rudde Ñaay am na yoo xam se ne ci son centre lay jóge am na ci soble yu ñuy wax ay balamine am na quartz am na yooyu daal parce que produit soble léegi dafa bëri chaque année semence bii génn da indi beneen beneen beneen kii bu bees euh, léegi nag loolu moom moo fi am di jaajëfal ñëpp di leen tamit euh, yéen journalistes yi maa leen baloo àq di leen jàllalaat sama loxo di leen gën a feddali sama kóllëre ak yéen ndax wax dëgg yàlla yéen soriwu leen jaaykatu soble yi soriwu leen producteurs yi donte soriwu leen sax kenn mais ku nekk pàcc bi nga nekk nga gën a mën a xam suñu leen wooyee da ngay disponible à tout moment heure bu ñu leen mën a woo parce que sànq wax lii fekk am na ñu fi jot a nekk sax mais même pas cinq minutes ñu bëri dikk nañ kon vraiment dañ leen di jaajëfal di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk ci yéen di ñaan bur yàlla boo la jéggal